gisuñu lenn lu ngeen fa tabax ñu dikkaat 2020 ngeen ne da ngeen fay tabax ñaari lycée ak deux CM ba nag ni kenn gisu dara monsieur ministre de l'éducation nationale dama bëgg nga xam ne département Mbacké day département boo xam ne ni dafa ëmb 16 commune mu am ci benn commune boo xam ne nii di Touba. di lu dëkk ci Sénégal ba nëgë ni département Mbacké mënut am jëlale na lycée sax ak CM waye war na noo toll ci am université war na amit ay daara moderne yo xamné ni xalé yi dañ ci mëna transport bi nga xamné ni élève Touba yi koy def di jóge Touba di ñëw di jàng si Mbacké ku ci mënta ñibi def journée continue da nga yandu ci école ba du nu am lu nu añee ay mburoog caaf la ñuy lekk ci biir école bi kon yaakaar naa ne yooyu école war naa am cantine scolaire monsieur le ministre da ngeen di xam ne département Mbacké ñetti fani màggali Touba rek département Mbacké dina dugal 3 milliards fii ci ci ci commune ci ci économie loolu amul benn département bu koy def fii ci Sénégal te dañoo seetlu seen budget 2017 ba ñu ngi 2021 amul fenn fu fu figuré wala bilan boo xam ne ni am ngeen ko ci département Mbacké gisuñu ko vraiment Macky Sall yaakaar naa ne dafa lajj vous n'avez pas de bilan dans le département de Mbacké je vous La parole est à Jane Nevesen.